ay la yéwén am na ay opposants yoo xam ne ñu ngi ci opposition bu Sénégal ñoo xam ne seen bopp kott moo leen yitteel fan yi nag ñu ngi wax mel ni ay opposants waaye duñ ci lenn seen intérêt bopp dong moo leen tax a jóg ak jalousie boo xam ne kenn mënu ko natt ñoom fan nañu nekkoon jamono bi nga xam ne Pastef mu ngi xeex ci ay loi yu jëm ci wàllum parrainage jamono bi nga xam ne Pastef mu ngi xeex ci report élection présidentielle yi jamono bi nga xam ne ñu ngi taxawal ab commission d'enquête parlementaire fan nañu nekkoon jamono bi nga xam ne ndaw yi Pastef yi ñu ngi xeex gannaaw ba ñu niilalee liste titulaire bu Yewwi fan nañu nekkoon itam jamono bi nga xam ne ñu ngi faj waa Pastef yi nga xam ne ñoo am ay gaañu gaañu jamono bi nga xam ne ñu ngi jàppale njabootu victime yi jamono bi nga xam ne ñu ngi faj góom yi nga xam ne waa Pastef am nañ ko ci seen biir jamono bi nga xam ne ñu ngi ut ay avocat ngir taxawu leen wala sax jël ay koppax di ko jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy détenu politique yi beneen laaj est-ce que ba fii gis ngeen benn victime boo xam ne tukkee na ci beneen parti boo xam ne mu ngi ci opposition bu Sénégal budul Pastef est-ce que sax gis ngeen ci benn prisonnier. seen xol dina dagg wéy di dagg ndax Ousmane Sonko léegi rek mu daal di siffler fin récréation bi li nar a gën a dagg seen xol nag nar a jógee ci candidat Bassirou Diomaye fay bi nga xam ne moo war a wéyal bile projet yi. nañu taxaw temb jàppale député yu Pastef ndaxte patriotes yi dañu mës a liggéey ngir intérêt supérieur bu sénégalais yi. AGT News. Merci de choisir AGT News pour vous informer les avocats de circonstance des victimes. Patriotes africains du Sénégal, sachons que nos plus grands ennemis se retrouvent dans l'opposition, des loups déguisés en agneaux et qui ont toujours comploté avec le régime pour entraver le projet du peuple. En vérité, ces quelques opposants à l'opposant ne sont nullement guidés par les principes ou autres valeurs universelles qu'ils prônent ces jours-ci. Ils sont purement et simplement guidés par des intérêts personnels cachés et une jalousie grandissante. Où était-il quand PASTEF se battait contre les lois sur le parrainage, sur le report qui a mis en place la commission d'enquête parlementaire? Où était-il quand les jeunes du PASTEF se battaient contre l'annulation de la liste des titulaires de Yewwi? Où était-il quand PASTEF pansait ses blessures et soutenait les familles des victimes, soignait et soigne toujours ses blessés, assistait juridiquement et financièrement les détenus politiques? avez blessés ou un seul prisonnier parmi ses opposants à l'opposant. Ils vont souffrir car le président Ousmane Sonko sifflera bientôt la fin de la récréation. Ils vont souffrir car le projet triomphera avec notre candidat Bassirou Diomaye Faye. Soutien aux de PASTEF, les patriotes qui ont toujours œuvré pour l'intérêt supérieur des Sénégalais.